bisub sant suñ boroom delloo njukkal alxuraan fàttaliku sëriñ cheikh li amal nañ ko ci mbàkke ci diwaanu gaawaan ci taxawaay daayira alxarakatu wal amal lil quraanil azim di mbooloo mi lëkkale mboolem ñi nga xam ne nii jaar nañu ci daara sëriñ cheikh li jamono yi nag ki nga xam ne ni moo ko wutu ci liggéey bi di Serigne naa li at mu jot daayira boobu lëkkale ñu bàyyi ko ci ay gox yu fasantikoo fekk ci seen mbokki taalibe yi nekk fii ci diwaanu Mbàkke amal na nu cant gi atum ren ji nag di vingt-quatrième édition maanaam ñaar fukkeel yoon ak ñeent niñ koy defee saa su nekk xëyee nañ ko njàngum alxuraanul karim ci ay kaamil yu takku gannaaw njàngum alxuraanul karim moomu ban njàng xatmu bi amal nañ fa ay waxtaan yu am solo ngir nag wax ci cosaanu daara ji waaye nag fàttaliku ki nga xam ne nii moo waral li lépp muy Serigne Cheikh Ly وذنوب المسلمين والمسلمات yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk yépp yi fi teew di leen ziyaara ci bis bu tedd bii di bisub cant daara Serigne Cheikh li muy cant gu ñuy amal di ci sant sunu borom subhaanahu wa taala waaye di ko awee ci moom mi nga xam ne teraanga jooju ci moom la ko yàlla jaare di ñaan fa mu nekk yàlla yàlla suñu borom yaasal njéggal ak yërmande ci moom te dolli koy ngërmande bi barke di Cheikh Xadim waaye di ñaanal loolu. mboolem jullit boo xam ne bii yaa nga foofu ca barsax al muhammadiya ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafidahu llah wa raa yàlla yàlla suñu borom guddal fanam loolu te dolli ak wéram te dolli ñu koo sàmmal aaral ñu ko ak xalifa maam Cheikh Raye Fall waaye ñaanal umma islamique bi yëpp ñu may nekk yàlla yàlla defal leen jàmm ñaanal tamit ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi yàlla suñu borom sàmm leen aar leen te barkeel seen yore ñu réew bu defee dañuy ubbi kàddu yi rek muy kàddu yoo xam ne baaxoo nañ di ko yëkkati ci bis bii ci waxtu wi waxtu woo xamee ne jàng nañ kaamil ba noppi jàng nañ fi nag li boobu kaamil bu tollu ci juróom-ñaar ngir sëñ Cheikh ak bëggam lépp alxuraan la sàlloo woon na it xasida gi ñuy wax muxaddimatul xidma aw muxaddimatul xidma moom it jàng nañ ci ñett loolu mooy lim bi nga xam ne ci jataay bi jot nañu ko fee amal am na nag yeneen lim yoo xam ne bii mbokk yu tedd yi ñu seqal liggéey bi ak soppe ak am di jàmm yi amal nañ ko ci ay lim yu takk ci bi kaamil ak lim yu takk ci ay xaswaayid incha allah yooyu des na ko booleeg limu jataay bi lépp ñu note ko jàllale ko mbooloo mi ci kanam incha allah bu ko defee rek dañu daal di sant mbokk yi àndaloon liggéey bi yëpp di leen gërëm depuis ñu xëy ak léegi ci jàngum alxuraan mi ci njiital Serigne Cheikhouna mi nga xam ne bii mooy xalifab Serigne Cheikh li di ñaan suñu borom sàmbal ñu ko te aaral ñu ko waaye feggoog rakkam sëriñ Guèye moom it nga xam ne at mu jot ñoo koy ànd nga xam ne bii moo fi jiitu mën naa ne moo fi mujj ak sëriñ Mouhamadul Moustapha ak sëriñ Baye Cheikh sëñ Omar ba ak mboolem ñi nga xam ne bii ñoom lañ jël kaamil bii ak lañ fiy durus lépp teg ko ci seen loxo dañuy bañ a dugg ci lim ndax mbooloo lañ ma takku macha allah te ko ci nekk mat lañ la dénk lool nga mate ko mat sëkk jëwriñ ca lañ la dénk. bu ko defee dañuy ubbil sëriñ Ibrahim mii nga xam ne moo doon jàng xatmu bi di jëwriñu jataay bii di mbokkum sëriñ Cheikhouna mën naa ne yor kàddu liggéey bii boo ko defee incha allah rab bi mu ubbi kàddu yi cant ak yooyu ngërëm jagleel ko mbooloo mi yëpp. asalaamaaleykum aleykum rahmatullah. ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar mboolem képp ku fi teew. di ñaan sunu borom lii ñu xëyee. muy alxuraanul karim nga xam ne mooy teer teer bi yàlla màgg bi bépp araf wuñ ko ja fi jàng rek yàlla nag suñ borom soppi ay leer soppi ko ay ngëneel jox ne ko suñu seex li ak mboolem ñi nekk di gërëm mboolem ku fi teew rek di gërëm suñu jëwriñ ji sëriñ seex li di ko ñaanal yàlla di seere ci moom ay ay kàddu muy sëriñ la boo xam ne daal nit ak alxuraan nit ak daara la jax takk ci alxuraan ñu ñuy moo ñu toq ci daara ji bañ jàng fi bañ bind fi ñaari kaamil ak mboolem mboolem ñu fi toog ñu soog ñëpp def na ci loo ñun loo xam daal ñu ngi koy defaat ci yeneen yeneen yeneen dongoy daara ba ñuy wattu di bind ay kaamil ci lépp ci ab liggéeyam la ñaan suñu borom daal suñu borom dafa defal ko tawfiix fam nekk yokk ay leeram yokk ay maqaamam waaw nit la koo xam daal ko bëggoon alxuraan la ci la dund ba faatu léppam alxuraan la yëngum ak ak dalam lépp alxuraan la. waaw ah, Moussa toog ci daara ji daal day day yor tàngoor woo xam ne daal maanaam képp koo xam ne yaa ngi yaa yaa ngi jàng bu gisee nga xaw melo melo woo ne ne bëggoo alxuraan wala góorgóorlu sax xolam dañuy tàng kon daal nit ni la koo xam ne daal kon léppam alxuraan la ñun daal mënuñu koo fay waaw ñu ñaan suñu borom daal suñu borom defal ko ay maqam ak leer. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen ni nuyu ci turu Serigne Cheikhouna mi nga xamante ni mooy. jëwrin ji wala mooy mudiru daara ji wala mooy borom daara ji nga xam ni moo fi euh, toog toogaayub Serigne Cheikh li ak rakkam Serigne Dieye li ak Serigne Khadim ak mbooleem rakkam yi ci topp ñu ngi leen di nu yéen mbokki jullit yi di leen ziara di amaat mbégte kontaante ci fekk nga xam te ni suñ borom fekk fekk loo waat nañu bis bi te ñu amoon taxawaay buñ ci daan def te suñ borom kattanal ñu ba taxawaay booba ñu koy ñu koy ñu koy amalaat ren. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax mbokk yi ñu ngi leen di xamal ne suñ seex li lii la ko waral mooy daf ñoo defal loo xamante ne nuñ koo fay te ñu lottu ci fay ko lool moo waral ñuy taxawal lii ngir di ko ci sant sant moom ni ko suñu borom waxe rek la in shakartum la azidannakum waaye nag wala in kafartum wa inna adabi la shadid bu ngeen santee ma dool leen waaye bu ngeen weddee na ngeen xam ne sama mbuga lu metti la wala lu tar la moo waral nag ñu ñuy sant xëy na sax luñ sant sant sant rek duñ àgg ca suñ suñ dayoo sant fa mu fa war a àgg mënuñ ko faa àggale waaye nag ñu jiim rek bu ko defee ñu ngi sant bu baax a baax daal ñun nag liggéey bi dafa am loo xamante ni féetale woon nañ ñu ko mooy li nga xamante ne mooy wàllum alxuraan ji sant nañ ci yàlla bu baax a baax nag ndax mboolem koo xam ne jaaroon jaaroon na ci daara ji yëgaloon nañ la xamal xamal la ne la. sas nañ la nga jàng ab kaamil am na ci yoo xam ne jéggi nañ ko ñi nga xam ne dañoo yoroon ay daara tim ku ci nekk tim woo nañ la ngir maanaam nga jàng lim boo xamante ne nii dañ ko def addee suñu seexli lépp lañ ngir sante ko ko ndax dama koy wax saa su ne daara ji suñ borom dafay def barke boo xamante ne nii néewaane nit nekk fi ba jóge fi samp daara te yàlla defulu ko ca ndimbal loolu saa yu ne dama koy wax ndax am na ñoo xam ne fi lañ jàngee ba mokkal alxuraan jóge fi sampaat ay daara ba daara yooyu sax juraan na ay daara te lépp li ko waral nag mooy mooy barkeb Sëñ Seex li ndax alxuraan moom la ca am solo mooy mooy mooy ba mooy ba mooy barke ba te barke ba bu amul rek law ga du mën a am ndax lépp loo xamante ne amut barke rek suñ borom du namm mu doon loo xamante ne day walangaan ba ñeneen ak ñeneen di jot ndax tiyaabu gu loola am kon nag loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. ba tey itam daara ji doon na nekk na daara joo xam te ni itam bu yàlla defee nga jaar fi ba jóge fi te nekk ci la nga war a nekk ak la suñu sax jëmbatoon ci yow nga nekk ca foo yaakaar ne sax maanaam da ngaa jóge ci daara Sëriñ Saaliw man ba taay ak ñu mel ni man nit gis na leen na leen laaj jan daara jan daara ngeen nekkoon ci daara Sëriñ Saaliw yi te lépp li ko waral mooy tërbiye gi nga xam te ne Sëriñ Seex li daan na ko def ci ñun ci tërbiye goo xam te ni nag doonut doonut doonut loo xam ne daf naa la toogal fi wala jógal fi waaye tërbiye la goo xam te muñ ko sañoon wax day mel ni tërbiye baatin la boo xamante ne ci biir daara ji nga nekk ci la ci nga koy jëlee te yow sax te doo xam sax nan la la duggee doo ko xam positif bi bi bi ngay am ak li nga nekk ni nga koy bëggee ci alxuraan ji doo xam sax yow loo ko waral ak mokkal gi nga xam te ne bu nekkee ci yow day sax doo xam yow lan moo ko waral loolu lépp maam day tekki ne maanaam Sëriñ Seex li ku amoon barke la ndax Sëriñ Murtala Mbàkke mu baax mi dañuy wax ne saa yuñ ko masaana ñaanal gudd fan daf naan gudd fan amul njariñ li am njariñ rek mooy dund mooy ngërëmal suñu borom te suñu seexli moom kenn wérante wul ne ku am ngërëmal suñu boroom la loolu moom nit moom lu ñàkk a xam ci moom dara ñàkk xam ci moom dara xam ne ku làq ngërëmal suñu borom la te xam ne ku dëddu woon adduna la tim nag waaw ndax euh, koo xamante ne nii daanaka daara ji jàkka ji amoo jeneen soxla daanaka soxla amoo lenn loo xamante addina yóbbu maam yóbbuloo dana adduna maanaam lépp addina da nga koo wanoon gannaaw noonu la meloon bañ na ko ba sax daanaka boo xoolee ñu bëri xam nañ ko daanaka daal di carax sax la daan la la daan sol waaw satala mii rek satala satala satala satala rek yéex na koo yor daanaka bidon la daan yor ñi fi ñi ñi li may wax nii man mbokk yi mën nañ ci seede li li li jamono soppeeku soppeeku soppeeku taxul maanaam jamono soppe dara euh, tergal tergal la daan sol ak pëpalin ak perkal di sol daal di carax ba noppi nag fees dell loolu moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy suñu seex li kon nag ñun daal ñu ngi koy ñaanal te di ko te di ko te te di ko di ko sant waaw lii ñu taxawal nii lii tax ñu koy taxawal mooy sant ko rek waaw xëy na dayoo cant ko sax mënuñ waaye nag ñuy jiim rek la ci des ñaan yàlla mu àggaleel ñu ko nag ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm bu baax a baax di ñaanal njabootam gi nga xam te ñoo fi nekk te fam leen fam leen fañ fam fam yemoon rek ñoom dañoo ñëw dañoo ñëw sof sos foofa daal jàll ndax li ñu koy xamee mooy ba mu fiy nekk daara ji jenn daara la woon te léegi Serigne Gueye yor na yor na yor na fee yor na daara Moustapha Tim yor na daara Omar yor na daara li ko waral mooy tim benn la woon waaye léegi nag moom dem dem na ba doon ñett ak ñeent ñun ñii dañ fee nekkoon di jàng léegi yor nañu daara euh, sëñ Ibrahima mi fi la nekkoon léegi yor na daara sama nijaay Mouriassine Limé kadalika ak ñeneen ak ñeneen ak suñu maam Cheikh suñu maam Cheikh mi nga xam ne sax ci ñun ñi sax ci ñu mujj ñi ci ñu mujj lan maanaam li fi suñu Cheikh bàyyi woon bi suñu seexu naa ñëwee da koo yàkkali moo waral ñun ñu mën a dem maanaam ba ko gën a yàkkale kon nag lépp rek ndax suñu borom moom euh, képp koo xam ne da sos dara ci loo xamante ne lu lu lu lu lu lu baax la tiyaaba ju ca kooka am yow da am tiyaaba ju tol noona kon nag muy muy law di dem rek. waaw bu ko defee daal ñun ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm bu baax a baax a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu alaa sayyidinaa Muhammadin wa sallam ñu ngi jégalu ci kàddu yi nag ndax dañoo baaxuwul wax nag waa ngeen baal ma seer tuuti seen seer ah, lu ma ci xaw a xam tuuti mm, wa makar wa yi yàlla lay wax soo abul jeneen makar ja am firi suñ seex da nga ciy jàng foofu ndax suñ seex daa dëjee dafa naxul yàlla naxul yàlla ndax yàlla ndax jamono yi muy nekk fii boo bay xeweegul comme ni mu xawee xewe nii bu ko neexoon daje nit ñi bañ bëree mu ne naa ñaani tool di leen ci yóbbu ndax amoon na mbokk eh, nu tudd gii boo Mbàkke gi am na ay ay tool mais mosu koo def leen dajee xam ni xew te mu nekk lim gëm moom ndax yàlla yàllaa ko ci dugal moo tax xoolu ci leneen amoon na mbooloo ma ko bayal waaye ji mu koo def loolu rek laa amal ma ci doon dolli ñu ngi leen sant na ci turu waa daara gi ñëpp ku fi mas a jaar rek mi ngi leen sant ndax li jot moo jafe mais amul ku ko bëgg a ku ko bëggut a teewale ku ko bëggut a amut mais jot moo xaw a manqué nit ñi sori loolu moo tax waaye ñu leen di sant seen suñ si suñuy ak ñi fi nekk ñëpp rek ñu nekk Mbàkke ak ñu nekk Touba ndax ñoo nekk ci bopp bi ñu ngeen di sant di leen gërëm suñ xol dafa sedd ci yéen ba mënuñ ñeen a gërëm waaye jërëjëf moom ama bala olof dafa amul baat bu ko gën a rëy moo tax ñu ngi leen di jëlëjëfal di ñaan yàlla mu guddal seen fan yàggal leen fi may leen wér bu ngeen ko mën a bu ngeen ko gën di mën a taxawoo ñun moom loolu rek lañ ci am lu ñu leen seet ñi ngi sant daal bu baax a baax baax kon lii mooy jataay bu njëkk bi nga xam ne ubbee nañ ko cant gu am solo gi leneen li ci des nag yaatu na ci ay liggéey yu fasantikoo bokk na ca yooya waañ wa collation bi ak ndaje mu am solo bi nga xam ne nii amal nañ ko ci ginnaaw jullee gée fanaaneen ko itam jàng alxuraanul karim ak jàng xasida dinañ leen ko digtal ci yeneen i vidéo yi le